mars mun nañ koo bañ a passé noonu nga xamante ne mooy bu ñu fàttaliku sëñ Babacar mhm. moo tax muy euh, génn àddinaam donc moom lañuy ñuy fàttaliku waaye dañuy dem rek euh, régie xool vidéo boo xamante ne ay témoignage ci ay doomam ñoo xamante ne tey mun nañu wax ne bàyyeeku nañ fii def nañ ko ci sëñ Babacar ñu seetaan d'accord nañ dem te ñëwaat yoon sëti yoneen gërëm naa la sabaay Maalik gërëm naa la borom min fii max naa sëriñ Babacar daf daan wax ni wa inna lamas na sama mu ne bul asamaan ba ñoom Jibril nekk waxal ci kaw rek waaw ndax asamaan bi ñoom Jibril nekk xam nga ndax mi ngi ci sa suufam dee wóorul ndax bu fekkee daf la ndar kepp ndax di nga tal kaw ak suuf doo ko tal wata bu ñu ne boo jàppee ba noppi bay def sa seede na nga yëkkati sa na nga yëkkati sa bët jëme kaw asamaan mu ni déedéet yëkkatil sa bët jëme ci kaw waaw ba tey foofu kaw rek lañ jiriñ ku soppoon xam-xam sëñ Babacar te soppiwu ko nag eh, cofeelu sëriñ ko sopp sopp scientifique mystique dafa nekkoon l'un des plus grands intellectuels de son temps euh, façon bi mu daan sonne ci xam-xam ak âge bëgg ko boole di recevoir nit nga defee ci guddi gi dafa ëpp sama naafila wàññeeku na ndax lecture guddi lay jàng guddi lay bind te wóolu ca kenn maa ngi def ci moom benn xasida ci koor bi am lu ma ko ñaan ni ko xam naa di nga mën ci bidi ndax may nga ma te ñaanuma Serigne Babacar Sy xam nga demul Màkka de seen war a daan wax Alaaji Babacar Sy ma ne ko demul Màkka loolu ma nga ni ma ni ko demul Màkka jóge ba ma jóge Dakar ñëw di ko sees fekk muy àggale téeréem boobu mu def ci ak Makka téere bu mu def ci aj Makka te moom ajiwul Makka mu ci nit ñi day tax nañu ma sàggane sama àll dafa dayoo yàlla sikkar ko du fas tay ni nit ñi day tax nañu ma sàggane sama alwa ma ni ko ngay jàng guddi ni kon na maa def sama naafila ma ni ko nga séddale ko genn wàllu naafila genn wàllu nga jàng parce que ñoo bokk yool ñoo bokk yool ba ni muy buy ji boroomam bàyyiwul àlluwa mu ko daan wax ni ko da waroon daje ak université Bagdad mu ni ma bu Maamun ma ni ko déedéet ma ni ko Maamun université modèle réduit la ci université Bagdad euh, ma ni ko Bagdad a toll woon kër goo dugg faculté la dëkk ba yëpp di université macha allah mu nekkoon ay témoignages yoo xam ne nii dafay ñeel sunu maam Serigne Babacar si rab yàlla taala anhu mhm. comme ni ñu koy waxee rek yàlla nañu yàlla doole ko fayal waaye itam gën ñoo taf ci barkeem incha allah. ñu léegi ni ki nga xamante mooy euh, almaktum Cheikh Tidiane Sy almaktum mhm. di doom moo xam ne ñu ngi doon témoigner ci papaam donc euh, ak màggaayam euh, donc bu ñu waxee almaktum dañuy xalaat al amin dañuy mhm. xel day dem tamit sëñ Pape Malick Sy mi nga xamante ne. mu ci mujj wàcc liggéey di leen di ñaan rek yàlla xaral leen àjjana yàlla taaf ñu seen barke ni ñu ko waxee woon sànq Thioro ci rubrique royuwaay tey ñu war a waxtaanee ci maam Cheikh Issa Diène suñu invité di euh, Serigne Abdou Latif Diène son yi bu sëñ Abdou Latif ginnaaw bëgg nuyoo woon euh, euh, balaa ñoo dugg ci journée culturelle maam Cheikh Issa Diène bëggoon nañu nga xamal ñu kan mooy maam Cheikh Issa Diène lu tax ñu koy dippee borom Diène ak lagan borom jénne ak lagan mhm. ah, waaw soxna si bu ñu yeesaloo nuyoo ba xam nga maam Cheikh Issa Diène moom foog naa loo gis lu nekk rek nit koo gis lu nekk wala loo mën di gis ci àdduna rek ay jëfam moo koy tegtale tey bu ñu waxtaanee ci ay jëfam buñ la waxee fan la ganee jamono ak kan la kañ la gane jamono buñ la waxtaanee ci ni mu doon liggéeyee ak ni mu nekkee woon ci kër sëriñ bi jëf yooyu moo lay tegtal kan mooy maam maam Cheikh Issa ci li nga ci liñ ci mën a xam ndax moom bu ñu xoolee mi ngi bokk ci waa Kajoor mooy mi ngi bokk mi ngi eh, ganee jamono tudd bu ñuy wax tàggaar ci Kajoor la bokk atum waaw 1865 bu dee ci ati milaadiye bi wala 1282 moom mooy dëppoo ci hijriye bi mu mm-hmm. ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax cëli cëli jenn mu ngi nekk ci ni ma la ko waxee léegi ci tundu ci tund tàggaar bi loolu amee fi nga xam ni war na fa jaar ci wàllu xam-xam ak wàllu jàng alxuraan yëpp mu jaar fa ndax euh, moom fi mu juddoo mooy fi mu gënee jamono daara la waajuram moo ko tàmbalil jàng ba ba mu sori lool mu dog ko jóbbu ci beneen daara wala moom mu laxas dem ci beneen daara ci daara jooju mu demoon nag foofu la mokkale alxuraan Euh, nam fa jaare banam ne alxuraan ji ñibbisee waat ci seen dëkk banam gàddaayawaat jàng xam-xam ba mboolem téere xam-xam yu yi ñu jàng ci réew bi yëpp mu jàng ko dafa dellusiwaat nag ci ci waajuram nekk ci wetam di ko jàppale ci liggéey bi euh, bi loolu ameet fekkete ni lu jiitu moom muy gane jamono waajuram comme ab boroom xam-xam la woon dafa daan jàng alxuraan ak di ko jàngale jàngoon na ba samp këram ba toog muy sëriñ Ibrahima Jenn la waajuram tudd bi mu kër ba toog nag gis ni ah moom am na benn téere boo xam ne daf ko bëgg a jàng muy laajte ba xam kan moo mën a jàngale téere boobu ñu wax ko mu nekk waliyu mag ku tudd Ahmadou Racine Niane ba tey ci ci tund woowu bokkoon ci tariqatu tijaaniya moom moom moom sëriñ Ibrahima Jenn moom oh, ab xaadir la woon ndax booba murit amagul mm-hmm. ndax li ma la wax léegi moom comme mi ngi jam gane jamono 1865 te euh, tariqatul muridiyya mi ngi door 1883 kon booba dangay gis ni amagul. waaye nag waaw. waaw moom maanaam avant murid loolu loolu bi muy xew. Mm-hmm. moom murid euh, kii yeegul ñëwagul waaw. bim bi nga xamee ne nag euh, dem na jàngi. Mm-hmm. ba jàng téere boobu ba àggal moom diiru bu muy jàng téere boobu moom sëñ Ibrahima. mi ngi gis nit ñu bari di ñëw ci suñu Ahmadou Racine Niane di ko laaj wérdu Tidiane mu daal di xelam ne ci wérdu yu mu laaj ko moom wax naa ne léegi ne ab xaadir la woon mm-hmm. waaye nag sëriñ bi daf koo gàntal ba ñetti yoon bi mu demee nag ba jàng bay delluwaat këram ci la ko Ahmadou Racine moomu leeral sëñ Ibrahima di waajuru Cheikh Issa ni ko leeral ko li tax joxu ko te maanaam werdu yu mu doon laaj mm-hmm. ne ko nag am na ay soxna yoo nga xam ne da nga leen a bàyyi sa kër Euh, am na ci soxna yi koo gërëm mu ngi ànd ak dara kooku bu gënee jamono jigéen lay doon waaye ka ci topp góor lay doon bu ñëwee nag na nga ko tuddee yonent yàlla Isa mooy mooy mooy mooy mooy Serigne Isa bi bi bi ko Serigne bi waxee loolu li mu ko tegtaloon lépp mu gis ko comme ni mu ko ko waxee woon bi mu ñëwee mu tuddee ko yonent yàlla Isa mu tegaloon ko ci wax ji nag ni ko dina dem bu jàngee ba noppi am na ñaan gu ko joxoon ni ko nanga ko jox mu def ko mu jarbu ko moom sëñ Issa bi mu demee ba toll fu mu war a defee loolu waajur mu góor jox ko ñaan gi mu def ko bi mu ko defee gént nag gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni dafa na ko waxoon na ko ni ko dina la musa tàggu ji dem ci penk bi ndax dafa am kilifa gu feeñ goo xam ne mooy nekk borom jamono boobu sëriñ bi lay lay lay lay waaye bu la tàggoo di ca dem na ko bàyyi bi mu defee ñaan gi benn bis mu tëdd di jàng alxuraan euh, jàng alxuraan ba ba mu guddi mu jël jukki bi teg ci dënnam tolloon ci aaya bi ñu wax wa ka ayi min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya xaawiyatun ala urushiha wa biirin muattalatin wa qasrin mashid wa qasrin mashid bi mu tollee foofu nag ci la ko gëmmeen jàpp mu nelaw foofu nag la génte gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jëflanteeg mu ay mbir ba noppi nag tegtal ko Serigne Touba Xaadim Rasul bi mu yeewoo nag ci nelaw yooyu ci la gis ne kon moom dafa war a dem jokk ji ci sëriñ boobu moo tax bi mu ñëwee ci ci ci waajuram leeral ko li mu gént waajuram tegu ci baat parce que waxoon nañ ko ko waaw ci la ko tàggu ni ko dama bëgg a dem jaayante ji ak sëriñ boobu may dégg ci penk bi mu nangul ko ne ko boo demee ne ko man gantuwuma waaye dama jeexal maanaam dama màggat mënatumaa ñëw daal koy yóbbante ak ak ak ak jaayanteem daal ci la sëriñ bi sëriñ saa jóg nag ñëw ci ñëw ci benn xaritam bu ñuy wax soori jóg bi mu ñëwee wax ko lim gis wax ko lim bëgg yëpp Sori daal di jébbalu ci moom ci saasa. jox ko mbalaanum cawle ñu ànd nag ci guddi gi dem Touba fekk sëriñ bi bañ demee euh, njëkk ñuy àggit am na fenn foo xam dañ fa jaaroon di noppalu ñu koy wax déggu mbal ñi dëkk Touba xam nañ ko ci ron ak dém foofu sëriñ Issa nettali na ne maanaam gépp ruux goo xam ni dafa war a wuyoo jenn ci nit ak jinne fekk nañ ko foofu jébbalu loolu lu ko suñu borom defal la ay jagle la ba mu fa jógee ba àgg ci sëriñ bi nag ba yëglu ba agsi ci moom nuyoo sëriñ bi laaj ko luy say tànk mu ne ko dama ñëwoon ngir jaayante mu laaj ko noo tudd mu wax ko ko foo dëkk mu ne ko tàggaar sëriñ bi ne ko tàggaar dañu xër lan luy sa yitte mu ne ko damaa ñëwoon ngir jébbalu mu ne ko tàllalee say loxo bi mu ko waxee loolu nag ci la ko sant ab liggéey boo xam ni fa dañ faa dëppoon ab néeg waaw li ñuy wax euh, dëpp ab néeg boo xam dañ ko faa dëppoon bi ñu ko dindee xam nga ñax mi day sax mm-hmm. mu ne ko nga bayal ma loolu Serigne Issa jël gob bi di bay loolu bi mu ko bayee ba mu àgg mu mu continuer ci Pastef beeg yooyu Serigne bi yónni ku ñu wax Omar euh, Omar Nguna Oumy Diop mu dem ni ko neel dongalee di bay na ñëw mm-hmm. ba mu demee wax ko ko sëñ saa mel ni comme pasteur bi bi mu amoon bi muy ñëw ak li mu def daal xeeb na ko mu continuer sëriñ bi ne ko demal boo demee nga fexe ba moom ba mu ba bàyyi liggéey bi bi mu ñëwee nag ci la ko sëñ bi laajaat mboolem lu ko laajoon mu tontuwaat ko ci la ne ko ñëwal dellu fa nga jóge laaj ko ne ko euh, ba nga fay jógee ñan nga fa bàyyi maanaam ñan ci fere mooy taalibe yi ñoo nga dëkkandool ci la ko waxee maam si Ibrahima Fall sëñ Massamba Diop mu ne ko demal dellu boo demee ngay def ni ñoom mooy del tegu ni yónnee nga xam ni kon ci diggante bi mu jàngee bi mu ganee jamono bi mu ñëwee ci sëriñ bi yëpp ak bi mu egsee ci sëriñ bi ci même suur bi ci la ko sëriñ bi liggéeyloo ci la ko gërëm ci la dellu fam fa mu dëkkoon waaw loolu itam dafa dañ ko mën nañ koo jàpp rek ci ci ci ci ak ak gane jamonom ak am njàngam akuk jaayamte ak sëriñ bi akuk yiwikoom waaye nag lépp loo dégg ñu dina moom sëriñ saa daf ko defal sëriñ Touba. lu weesu mbay moomu noonu ginnaaw bi mu ko yiwee ba noppi la kon injaasaat yeeg yi war a ñëwaat yëpp yëpp yëpp ginnaaw bi mu demee ba ba noppi la loolu nag moo tax ci jamono ji ñu toll ñu gis ni comme doon na defal Serigne Touba ay liggéey yu rëy ñu nga xam ne dafay dugg ci biir xidma te xidma dafa nekk loo xam ne lu lu am solo la ndax sëriñ bi jàngal nañu ko maanaam xitmaal jullit ñi maanaam nekk nekk koo xam ne da ngay liggéeyal jullit ñi def benn liggéey boo xam ne maanaam ñëpp intérêt général lay nekk ak liggéey boo xam ne ci sëriñ bi la koy defal masalan bu ñu demee ci téyeb sëriñ bi bi mu tuddee Masaalikul Jinaan ñu ngi ñuy jàngal xidma liggéey naka la amee solo wax ni waqiila in xadara yowmal baari wa duriba siraatu fawqa naari naadaa muna wakaabadal wara jawaabal xumma naadaa munaadin ayna ahlil xidma nee boo xamee ni dem nañ ba bis pénc ba nit ñëpp nekk ci ay jafe-jafe di jàngonteeg ay ay biir nee na bu boobaa eh, yàlla dafay dafay yebal jëmm muy wër di woote di wax ne ana ñi doon liggéeyal jullit ana ñi doon def ma ngir jullit bi nee na bu ko defee ñëpp dañuy wuyu bu ko defee suñu borom li mu leen di wax mooy woy leen àjjana ci lu dul benn fitna ak lu dul benn coono am na fu sëriñ bi bind wax ni hmm. inna alladina saarao fi xidmati fa lahumu diyaar wastal jannati nee na ñi nga xam ne dañuy njëkkante ci dima liggéeyal nee na ñooñu bu ëllëgee ay aj ay ajjana la am ci digg ajjana ya kon da ci ciy ni liggéeyal sëriñ bi lu am solo la mm-hmm. moom nag liggéey yi nga xam ne moom la doon defal sëriñ bokk na ci la ci gën a ràññeeku mooy mooy jumaay njaareem waaw bi mm-hmm. liggéey boobu keroog bis mm-hmm. dañ daal liggéey liggéey bu am solo bëggoon a ñëw man. Hmm, dëgg la waaw hmm. ah, waaw ndax doon na def ay ay ay liggéey yu bari ay xeeti liggéey yu wuute doon na ko liggéeyal sëriñ bi waaye nag ginnaaw bi sëriñ bi jóge ci géej gi liggéey bii mu sant ko ko nga xam ni mooy seen yu gën a rëy ci yoonu murit mu teg ko ci loxoom ci ndigalul borom eh, ndax liggéey boobu sëriñ bi bi mu bi bim bi leen nettilee dajale fere yëpp taalibe yëpp nettali leen eh, la ko daloon ca ba ci bantam yooyu mu sampoon te soldaar si yàqati ko ci seen ndigalul kilifa dafay na wax ni suñ borom dafa ko cee fay woon nag ñaari jumaa mooy jumaay njaareem ak ju Tuuba daal leen wax nag benn ba moom la bëgg def fii njaareem dajale leen daal leen wax ni suñ borom dafa wax ni nañ ma ko defar fii ci njaareem waaye nag ba ba mu leen di tànn ba mu dajalee ñëpp di leen tànn boobu fekk na Serigne Issa mi ngi ci juróom-ñaareelu sàppe bi waaye dafa sukk ba ci wam yi siggi nii daan ne ko Isaa Jeen yàlla na yow yaay liggéey jumaa ji kon mu nekk ndigal loo xam ni ci sëriñ bi la jóge jóge ci boromam jaar ci sëriñ bi ñëw ci ñëw ci sëriñ mu jox ko ko nag ci ndigal loolu ak ni mu ko ko joxe mu nekk yitte ju rëy maanaam mu def ko mu jox ko yitte ju réy daal ba tax na li ci war lépp mu def ko ndax sëriñ bi bi mu bi mu rëddee plan bi ci Helsas mooy 1335 hijriya tolloog 1917 euh, ci guddik dimanche ci rabion saani euh, ba gaaral leen loolu Serigne Issa dafa daal di def yitte ci fexe ba am plan mhm. am na ñoo wax ne sax amul plan waaye am na plan plan mu ngi ko jële woon turc jumaa joo xam ne jaamiu Souleymaniya la tuddoon ñoo ngi ko defaroon 1550 euh, lañ ko tàmbali woon mu àgg 1557 sept ans la diire mhm. buur bu ñu wax sala saamaan moo ko defaroon mhm. moom jumaa jooju moom la sëñ saa jël plan bi indi ko ndax moom dafa nekkoon koo xam ni jamono yooyu dafa fonkoon mbirum mm, ay journal dafa dafa dafa abonné ci ay journal yu bari dina woon ci bitim réew di xam li xew ci jamono ji hmm. loolu moo ko mayoon nag bi mu bëggee songu liggéey bi mu jaare foofu am plan boobu hmm. bi mu ko bi ko indee fas ne jublu ci liggéey bi lu njëkk sëñ bi di bind di di dëdd plan bi ci at mi ma la wax léegi hmm. dafa bi mu leen waxee yéene ji dafa sëñ Issa dafa jug daal di lijjanti ab terrain boo xam ne mooy fi jumaa ji nekk tey euh, dafa nekkoon toolu toolu ab tokkooru ñaam bi mm. ku ñuy wax Maysa Njaay moo ko moomoon mm. sëriñ saa jënd ko ci ñeent fukki dërëmi ngurdu mm. ci ci jamono yooyu ñu ñu ñu ñu signé def def def acte de bi ak euh, gouverneur ba fa newoon ak sëriñ Issa ak Maysa Njaay ñu uh-huh. ko jëndee ba noppi nag mm-hmm. ñu gas fondement bi mm-hmm. fondement bi ñu ngi ko gas euh, moom ci 1336. depuis 1917. maanaam ci diggante at mi mi sëñ ak ak mi ñu tàmbali liggéey bi ci lañ gas fondement bi nag mhm. léegi nag ci 1918. Mhm. le 11 mars 1918. Mhm. ci la sëñ bi teg xeer wi. waaw li bi tegee xeer wi nag. liggéey bi sëriñ saa jublu ci mu àgg. Euh, atum 1924. mu mel ni ñaari mosquée yi dañoo niroo. Euh, mm-hmm. sëñ Abdou Latif bu Diourbel mm-hmm. bi ak bu Ndiéné bi. architecture euh, dafa mel ni. waaw mm-hmm. bi nga xam ne tamit yaa jamono ngi dox. xam nga sëriñ bi moom. lu ko la muy fay ña koy liggéeyal xaj na mënuñoo wax lépp sax ni. lu ko waaye defar rek dala koy fay fii ci àdduna mhm. waaye dafa nekk ku neex a liggéeyal mhm. ndax jumaa ji dafa tekki ni tey la ko Serigne saa defaraloon ca njaareem mu Jurbel mhm. tey ci àdduna rek bu ñu doon wax ni da koy fay mën nañu wax ni fay na ko waaye nag xaj na moom lam war a liggéey ba ak la ko ci sëñ bi yéene ak lam ko ci fàggul lépp loolu du la xaj àdduna waaye jumaa ji dafay dafay tekki ni ak ah kii kat sëriñ bi mu doon liggéeyal ko jara liggéeyal la ndax nam fonke jumaa ji ak nam ko liggéey woon tey benn ko taalibeem rek moo ñëw defaral ko jumaa ju mel noonu nga xam ni plan bi ñoo bokk. dara wuutegu ci mu def ci xaalis bu bari defal ko ko ci am péncam. muy jumaa bu mag bi nekk Touba wala jumaa Njaareem. jumaa Njaareem bu Njaareem jumaa Njaareem bi waaw. te jamono ji mooy mooy mooy mooy 18 14 18. 14 xam ne ci guerre boobu la woon. nekkoon nekkoon loo xam ne lu jafe la. Mm-hmm. Euh, liggéey bi it bu ñu xoolee bu ñu bu ñu xoolee ci 1917 euh, ba 1924. loolu dafay boo xool da ngay gis ni dafa diire sept ans daanaka même jumaa ji mu jël plan mhm. ñoo bokk ñoo bokk même même même diiran mhm. waaw jumaa ji nekk jumaa joo xam ni boo xoolee guddaay bi ni ci kaw 96 mètres la mhm. yaatuwaay bi nekk 66 di tollook allah poto yi ne ci biir nekk 96 fondement bi guddee guddee 2 mu mu mu yàlla defal ko tawfeex mu liggéey ko ba mu àgg ci teewaayu ci teewaayu sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi ubbil ko boppam nga xam ne dara la tegu ko ci ba fi mu ne ñu nekk may wax ak ñëw nii liggéey boobu képp ku fi nekkal sëriñ bi ñoom ci seen loxo nga koy teg entretien bi ñoo ko ñoo ko yor ba léegi waaw loolu di taw tawfeex joo xam ni borom bi defal na ko ko ndax mooy jumaa ji nga xam ne sëriñ bi santaane ko ñu liggéey ko ci kanam mu àgg. mu mu ubbi ko waaw. ak jamono ji ko ak jamono ji mu ko def ba léegi plan yu bari nga xam ne bu ñu waxee plan bii bu yàggul lañ ko defar te jumaa jooju lañ jël. ba tey gi da ngay gis ne macha allah. Mhm. loolu kon fi yéene jim yéene jim amoon ci liggéey bi la mhm. waaw. comme mu ngi am solo ba tax ñu war a fësal ki nga li nga liggéeyoo li nga xamante ne moom mooy maam Cheikh Issa Diène mm. ba tax ngeen war a amal benn journée culturelle mm. euh, fii ci foire bi ci dimanche 27 euh, mars bi mm. waaye ngeen war fa amal lii di projection film documentaire ci moom waaw incha allah mm-hmm. loolu bu ko defee dañuy may euh, ñu dugg ci programme bi rek ci programme journée bi waaye wax naa la moom mm-hmm. liggéey boobu dafa nekk liggéey bu njëkk bu mu defal sëriñ bi rek waaye xeeti liggéey yu bari ndax moom mm-hmm. dafa sàkk ci wàllu daara samp ay dëkk mm-hmm. di teg ay sëriñ daara di jël ay doomam di leen jox mm-hmm. dégg nga di defar ba tey ay néeg ci biir kër sëriñ bi néeg bi nga xam ne ci la sëriñ bi euh, loo sax moom moo ko daajoon ndax yàlla daf ko mayoon xelante ci wàllu menuisier wàllu métallique ba lépp lu mu daan defar la ca war a ànd ci affaire métallique moom moo koy defaral boppam mm-hmm. li ca war a ànd ci affaire ministère moo koy defaral boppam mm-hmm. chaise yi moo koy defaral boppam yooyu yëpp suñu borom daf koo mayoon mu daje ci moom ba ci wàllu mécanique yooyu yëpp loolu nag yàlla def na tawféex ba bi mu def na am na ñu ko rafaatale ci taalibe yi mm-hmm. boo demee ci seen biir da leen gis ku ci nekk am na loo xam ne am nga ca xelante goo xam ne da ngay xam ne du xam-xam moo la ko may waaye baatin la bokk na ci liggéey mu daan defal si mooy gas ay teen foofu ci njaareem gas na fa ay teen yu bari mooy xidma gi ma doon wax ni mhm. daf koy def pour sëriñ bi waaye day nekk intérêt jullit ñëpp daana ko tam ci jamono jooju defaral na ko ab pour 1908 ci ci jolof mhm. ci yéen jolof ndax booba tubaab bi dafa ñëw mhm. bëgg defar pour bi sëriñ bi xamal ko ni ko am naa ko ko man ginnaaw bi la ko la ko Cheikh Issa defar ba léegi ni boo fa demee da nga ko fekk ah, niki noonu kon loolu mën nañoo yemale foofu dama laa bëgg wax ne xeet yu bari la ñu doog a dugg ci programme bi programme bi tam mhm. euh, bi loolu amee liggéey yëpp nekk ci mhm. moo tax euh, am kuréel gu taxaw ci ci kër gi gu ñu wax jamaatu tawdixi wa nasri li injazati Cheikh Issa Diène mhm. mooy kuréel goo xam ni dafay leeral bu leeralee ba noppi tasaare liggéeyu Serigne Issa loolu bi ginnaaw bi ñu ci amee ndigalul seen i kilifa. Mhm. daal di ñëw nag euh, di ko defee fii dakaar CICES mu war a nekk le 27 mars nekk quatrième euh, édition bi ci la. Ah, nekk mooy ah, quatrième édition bi parce que ñaari at yi amut waaye defoon nañ ko 2017. 2018 ah, ak 2019. Mhm. ba tey ñu koy ñu koy doog a defaat nii ren ñu duppee ko suñu Ahmadou Ndoumbe Mbacké Xaban ndax at mu at mu jot dafay am kuñ ko kuñ ko tudde mhm. am thème bu ñu tànn. thème bi lan bi tey mooy xidma. mooy li ma la doon wax nii léegi. xidma mooy maanaam waaw liggéey mooy liggéey. ñu jël exemple nag suñu saa. naka mm-hmm. li mu doon liggéey ak naka la ko doon defee. Mm-hmm. parce que ay liggéeyam tamit dafa dafa ànd ak xereñte goo xam ne xaj na loolu koo xam ne ñëw ko ca bis ba. Mm-hmm. Euh, la nga ci bëgg a xam lépp di nga ko mën a xam donte xam naa waxtaan wi. du ñu ko da ngeen koy defal tamit film documentaire. dafa am benn film am na film documentaire bu war a jàll. ci ci ci ci ci ci écran bi incha allah. loolu boo xoolee. Euh, maanaam huit ci la ñi nga xam ne dañuy jàng alxuraan ji moom la ñuy tase foofu jàng alxuraan ji mhm. bu demee ba dix heures ñu def mise cent place bi mhm. onze heures trente ñu def hommage yi xaw nañoo limu ci ci ay kilifa yoo xam ni dañoo bokkoon ci yoon wit te jóge fi mhm. ay mbokki taalibe bi ak ñoo xam ne dañoo àndoon ak liggéey bi ba tey suñu borom moom leen bu demee ba douze heures trente ci la ñuy def jox kàddu ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee ñoom lañ dara jaale bis bi mooy waa kër Sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke Xabaan ndax ñoom seen diggante seen diggante lu yàgg la ndax même jumaay njaareem jooju bi ko bi ko bi ko sëñ Issa di defar sëñ Ahmadu Ndumbe bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a jàmbaare ñoo ci ëpp lu ñu def ci ci wàllu finance ginnaawam kon loolu seen diggante day wane ni day wane ni lu yàgg la euh, film bi nga wax mi ngi jàll 13h30 bu ñu demee ba 13 ci la film boobu jàll bu jeexee nag ñu doog a def julli def euh, yëfi paaleen mm-hmm. bu noppee doo ko dellusiwaat ci biir mm-hmm. def conférence bi bu loolu muy 15 heures 15 heures 40 15 heures ba quinze heures 40 ci la dem mm-hmm. bu jeexee ñu doog a 15 heures quarante ba 16 heures 45 ñu def lu ñuy wax rubrique xamle bu baax boobu tamit ci bi bi lay jàll bu bu bu jeexee nag ci la ñuy julli tàkkusaan bu jeexee foofu lay bala balaay loolu 17 heures sero ci la euh, discours bi bi nga xam ne mooy bàyyikoo ci ki nga xam ni xalif général di murit moom la yebal mm-hmm. bu jeexee nag yenn cadre de versement moo ci topp mu daa di mu daal di jeex mm-hmm. kon loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi ñu war a jàllale le 27 mars mm-hmm. ñoo ngi ci woo ñëpp nag di ko tàmbalee ci ci yéen euh, di sàkku ñëpp seen teewaay ndax lu am am solo dina fa dina dina fa am ci thème bi ñu tànn mooy muy xidma waaw lu am am solo dina fa am ci sëñ Issa ay liggéeyam ak naka la doon liggéeyee liggéeyal sëriñ bi ak naka la doon liggéeyee loo xam ni bu ko liggéeyee ba noppi dafay nekk intérêt pour jullit ñëpp nekk fi ba léegi ni ak qualité bi mu ci doon def ndax tey jii boo xoolee jumaa njaarim ba léegi boo demee comme ni mu ko liggéeyee woon amutoon birig ba léegi lu ñu cee def moom peinture leen wala karo waaye amatul lu ñu def parce que qualité ba moo tax. Mm. waaw loolu loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo jàpp ci ci programme bi. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah mu nekk programme bu mm-hmm. riche comme ni ñu koy waxee waaye tam ki ñu ci eh, ñaanal di ko sargal moom moo toll noonu. di maam xanaa rek. Fatou di. wax ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokku jullit yi rawatina. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a boobu boobule bés. ñu mm-hmm. daal di ñëw foofee mm-hmm. ci sees. ci sees ni ki rek 27 mars bi di dimanche incha la jaajëfal baax baax. Ah, ñu ngi gi di la bàyyi nga tàggatoo ngi leen di sant bu baax. di nuyu kilifa gi fi teew léegi Mbacke Bala ñu ngi lay ziar. di am rafet njort jataay bi tax buñ tàmbalee jataay waxtaane ah. kenn ci magi sëriñ bi mm-hmm. laataa ñuy noppi sëtub sëriñ bi ñëw teew loolu dañ koy mën a jàppee mm-hmm. liggéey boo xam ne bu nangu la ñu ngi nag euh, sàkku seen ñaan di leen ci woo mm-hmm. ndax euh, tasaare loolu rek liggéeyub sëriñ bi ndax ñoom ku leen ku leen feeñal ak seenub liggéey rek liggéeyub sëriñ bi ngay ngay feeñal kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci ci ci ci jataay bi waaye di di di di woo ñëpp rek di invité ñëpp fas yéene ñu teew ci bis ba ndax loo ama am solo moom mm-hmm. incha allah rabbi dana fa am waa kay jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah waaw incha allah donc di ko jaajëfal rek euh, moom euh, kii di Serigne Abdou Latif Diène soy bu di euh, ko jaajëfal ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne xamle nañu nit ki ci liggéey bu am solo nekk ci diina waaye tamit nekk ci beneen fànn wàllu liggéey boole yëpp mm-hmm. donc di leen ñaanal rek seen xew-xew boobu ñu am ci 27 mars foofu ci foire bi ñu amal ko ci euh, ab jàmm ak salaam. Euh, donc di jaajëfal ñëpp rek ñi nga xamante ne doon seetaan euh, donc ci rubrique Royukaay ci émission Petit Déj di leen jox dig daja rek incha allah ajum bi di ñëw ci beneen rubrique Royukaay. incha allah comme noonee nga ko waxee noonu lay amee waaye itam dañu daal di ñëw ci sunu rubrique bi nga xam ne moom moo di miroir de l'islam ki nga xam ne moom la ñu ci début bi ne moom la ñu fas yéene sekkal sunu invité moom nag daal di xam ne moom moo di ci plateau bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mbacke Balla Aïssa mu nuyoo nag ci turu sëñ Abo Mbacke Xaadim Awa Ba dootuñu ko présenté xanaa rek dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan mu ngi lay nuyu di la dara ci plateau bi.